na wax ci mais quand même c'est c'est un peu paradoxal. Ousmane Sonko ah. dem ci Faye. ko dem laaj ko président témoin non pas mu ron laaj dafa ron laaj mais defal intervention. président de la République fa devant témoin mom Ousmane Sonko sama bureau mo recevoir ko mo laaj il intervention du président. mais alors, est-ce que le avant nous qu'il ñu koy ñu cas parce que vous n'avez avant ñu on trouve que ça fait. <laughs> laaj mon pas frère bu frère ça plus de 30 ans. ni avant ñu radier parce que. de ah, Le radier de de de. la <laughs> mais <laughs> mais c'est radier. sëñ Cheikh de sa pàccee ba affaire nii ngeen garaawe sa maa ñëw surtout di ko situé pour demander un trip. Là, tu es présent et c'est toi qui, qui, qui, a, qui, a, beaucoup insisté de mettre ton patron au pouvoir. Et c'était avant que le banque de la politique, c'était en 2013. Mais c'est normal quoi. Comment tu les gars qui te à ce niveau-là Mais comme tu es le témoin, tu vas, tu vas faire le témoignage de

mun wax ci mais quand même c'est c'est un peu paradoxal. Ousmane Sonko bi dem ci Faye. laaj ko laaj ko rek. Je ne non pas mu dafa Je dafa doon laaj mais defal intervention. président de la République pas laa yem. te devant témoin Ousmane Sonko moo ñëw bureau mu recevoir laaj audience audience recevoir ma intervention ci président. mais alors, est-ce que du lu avant ñu koy parce que vous nekkee avant ñu koy radier bon on trouve que ça peut être. laaj ko ko te frère ça fait plus de 30 ans. On avant ñu parce que. de de. la dem mais mais cher. sëñ Cheikh say banque do affaire ni ngeen garaawe sa ak maa ñëw sukk di ko supplier pour demander un truc là tu étais présent et toi qui m'as qui a qui a beaucoup insisté devant ton patron Boba et c'était avant que tu m'engages en politique c'était en 2013 mais day na waar quoi xamoon ne la gars yi fi lañu wàcc à ce niveau là mais comme tu es le témoin tu vas tu vas faire ce témoignage donc moi mbokki Sénégal asalaamualeykum man seen euh, xarit seen mbokk seen euh, wëllëre euh, di Ousmane Sonko président parti bi ñuy wax Pastef les Patriotes bokk ci coalition bu ñu tuddee Jotna di député à l'Assemblée nationale maa fas yéene ñëwaat ak yéen si diir bu gàtt rek waxtaan ak yéen tuuti ci xew-xewu. jamono rawat nañ su dee xew-xew bobu dafa daf ñoo laal ñi ci waxtaan ci lu gatt di nuyu wa Sénégal yépp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di am satisfaction trop ci màggal gi ñu génn nga xam ne yàlla may nañ ñu teew ko dem ci am ci it tertu ak dalal boo xam ne kawe na suñu jot donte sax yombuloon ndax pexe bu dul pexe jinne nit ñi def nañ ko pour saboter suñu màggal ba lenn ci kilifa yi sax duñu dalal ñi àndoon ak ñun nekkoon ci délégation bi xam nañ ni ñuy wax waaye yàlla may ñu ci loo xam ne defe naa néew na ku ko ci am ndax ay kilifa yu màgg màgg dalal nañ ñu bernde ñu waxtaan ak ñun waxtaan yu am solo yoo xam ne yéen ñëpp suivre ngeen ko ci réseaux sociaux yi kon loolu muy wane rek mooy euh, dëggay mucc mën nañu wër ci nopp nit ñi di wax di essayer yàq deru nit ñi waaye kilifa diine yi kenn mënu leen manipuler yàlla na leen yàlla fayal yàlla na leen yàlla bàyyi suñu kanam ci lu yàgg yàgg yàgg euh, dégg nañ it seen dénkaane te loolu daf ñuy gën a soñ ñu gën a góorgóorlu li muy wane rek mooy ñu ngi ci yoon bi euh, fii ñu nekk nii jóge ci xew-xew bu ni mel nga xam ne daanaka jeexagul sax waroon nañu jombale peut-être di wax ci wax yi nga xam ne dafa jëm ci mbirum politique ak mbirum àdduna waaye nag dafa fekk nii bu dee ñu ko seqal teggi wuñu waroo teggi dégg nañ tam yéen ñëpp seen woote ñu bëree bari bëri bëri wax nañu ne waruñoo àddu ci mbir mi waruñu cee tontooti mbirim mi dañ ko war a bàyyi noonu parce que sénégalais yi kenn ku nekk am na ràññe mun na am capacité ràññ waaye dafa fekk ñun suñu duggee ci mbir dañ koy topp ba mu jeex parce que lu ko may rek mën na bàyyi ay lënt-lënt ci xelu ñenn ñi. te nun dafa am lu ñu senegal yi xamee wóolooñu loolu mooy dañuy wax dëgg jëf dëgg loolu moo ñu andi ci politique te noonu la ñu doxalee fii ñu toll nii te mosuñoo wax sénégalais yi lu dañ wax ji mun na bëri politique bi ñu jax essayé jaxase carte gi am ñu leen di bindal ñu leen di bindal ñu leen di waxal leen waxal waaye bu ñu demee ba ci cappaandaw bi fu muy mujj mooy la Ousmane Sonko waxoon mooy dëgg moo tax du ñu dara. ndax suñ ko bàyyee noonu ëllëg dangay ngay xëy lépp ñu affiché ko ay titres yu rëy rëy rëy bindee ko noo xam ne mën na ëllëg sénégalais yu bëree bëri bëri moo tax ñu ne tey dinañ ci wax tey nag dañ ciy mujjee wax tey dañ ciy mujjee wax waaye dinañ ko wax ba mu jeex tàkk ndax ku yàlla may amoo loo nëbb ku yàlla may amoo looy nëbbatu ci walu wi ñuy yëngatu muy walu politique suñu loxo ci kaw amuñu lu ñuy neubut na ci delu ci bo yox yoxee ba ñi nga xam ñom dañoo tilim seen loxo tilim wara mëna ut morom parce que buñu ñu politique ba légui bu ngeen ñom ñoom ñu ni ñom dañoo tilim te Sénégal yépp xam nañ ko waye lén rek lañu ñu ñi def ba gakkal deru Ousmane Sonko ba sénégalais né moma gaay bénn suñu téggé touma dañ koy teggi di wax tamit rawatina suñuy militant suñuy sympathisant ne leen politique dafa am nu mu demee politique dafa ànd ak polémique politique dafa ànd ak coow ku yaakaar ni politique c'est un long fleuve tranquille boo xam ne yow kenn du la pexeel kenn du la sosal da ngay nax sa bopp li am solo rek mooy lu ñu mën a ruumanaat rek lu ñu mën a nas ba toog rek àdduna du dox ba ñu fekk la foofa loolu rek moo am solo mais tuuma dañ koy teggi ndax lu ko mooy mu jax-jaxal xelu nit ñi dañ naan seytaane waxul dëgg waaye mun naa andi lënt ci xelu li ñi ba tax nag nee naa tey laa ci wax tey laa ci tey laa ci bi ñu bi ñu commencé ba léegi waxuma ci dama doon bind sama page Facebook presse bi jël keneen jël keneen jël waaye kenn dégg bu ma ma àddu ci tey laa ci wax tey laa ciy mujj waaye njalbeen may commencé wax dama bëgg ñun Sénégal yépp ñu dëppoo ci lenn loolu dafa am solo ci li may wax liy ñëw mooy tey dañoo xëy génne audio audio ba ki ko waroon génne dafa daw res moom ndax dafa taxaw wax senegalit yi ne su ma nee prib ma ne ko prib waaye xam nga ñu ne da ngay def course 100 direction bii ñu ne la prib nga daw jëme côté bële di ut kooy ñëw teg mu dawal la loolu ci ragal la bok ba tax nit ñi ne ma nak ñi mu yabal nga bu ko ma tuddu sax tour bi ñu leen tuddé waye Sénégal yi xamna moy kuti yoy kuti waru ñu won doon sama yi may ton ton tel. waye na ne dama ni mbir mi nañ ko jéxal mu jéx mu leer nañ ci bop Sénégal yi ñu jublu ci leneen ma suñu d'accord ñun ñépp ni audio bi léegi mooy référence bi te ñoom ñoo ko génne kon ñoom dëggal nañu audio bi xam nga su doon maa génne audio mun nañ ne sax am na nu mu mel mais ñoom ñoo génne seen audio amul leneen lu mun a doon seede tey ci wax ji ñuy wax lu dul audio boobu parce que keneen ku wax dafa far fi mu far ba noppi doo mus a gis koo xam ne dañoo yor sànqalam teg ko fi ñu ko teg mu génn leen wetti ba ci diine gi ñu gëm dafa am ay charte pour nit mat seere kon audio bi ñun ñëpp d'accord nañu tey mooy élément de référence loolu dafa am solo audio bi nee nañu gën saa gudd 30 secondes def wala 28 secondes mooy élément euh, de de de référence audio boobu la ku ñuy wax Mansour Faye di ministre de la République. wàcc ba ci suuf ne moom wër na di fortaatu ay audio yu muy génne audio boobu la génne bi mu génnee xam naa ni sénégalais yëpp am nañ déception parce que ñëpp jàppoon nañ ni audio bi lu doy waar nekk ci biir audio bi waaye bi ojo bi génnee sénégalais yëpp am nañ déception waaye li gën a am solo mooy ojo bi daf noo dëggal ñun dinaa ci ñëw léegi moo tax bi ñu gisee ni ojo bi doyul wala audio bi dafa wëlbatiku contre ñoom. lañu ñu yebalaan ay nit ne leen dem leen def interview pour mottali waaye ma dellu si la ma doon wax audio lañu ñu yéeg la ñu annoncé woon Sénégal ne leen am nañu audio boo xam ne bu ñu ko génnee àdduna tukki génne nañu audio bi Sénégal yëpp dégg nañu muy benn ma fàttali lan mooy wax ji wax ji mooy moom Mansour Faye dafa génn ci émission ne moom buñ ko woowee fi mu war a layoog sénégalais ci koppar giñ ko dénk du fa dem ba mu ko defee ma dem sama tournée Saint-Louis journaliste yi taal micro ne ma lii Mansour ma fay la wax lan nga ci xalaat ma ne leen bu soobee yàlla xaw ma tey la xaw ma subal xaw ma gannaaw su waaye Mansour Faye dina layoog sénégalais te nekk goro président la république terewul nit mu layoo parce que dañu laa dénk suñu koppar te du benn milliard du ñaari milliard waaye ay téeméeri téeméeri milliard la Mansour Faye yoroon ci loxoom am lu mu ko yore te dinaa ci ñëw léegi loolu mooy wax ji te loolu rek intéressé Sénégalais parce que Ousmane Sonko Mansour Faye gisee nag moom moom kañ la gisee loolu yokkul dara ci Sénégal wàññiwul dara ci Sénégal waaye li gën a am solo ñu bañ koo réere mbir mooy téeméeri téeméeri milliards yooyu mu yoroon. war koo layoog sénégalais te nee na lànk na du ko layoog sénégalais te loolu naa ci waxaat ko si kanam ba ma ko tontoo bi ma waxee loolu mu dem ci ëllëg sa émission mooy li ngeen doon déglu léegi audio ne moom ñëw na sama bureau sukk saraxuma ñaan ma audience loolu dafa am solo wax jooju la ñu tontu ñun ma tontu leen ne bi Sénégal di Sénégal ba léegi musuma gis ku mën a nal ba mel ni ma Mansour bi Sénégal di Sénégal ba léegi dundaguma ba gis ku mun a nal ba mel ni Mansour Faye parce que li mu wax amut mu dellu si waat def ay génnam ne am naa sax lu may génne def déclaration cinq minutes bu koy firndeel lii mooy les faits audio boobu nag moo génn tey ojo boobu daf ñoo dëggal parce que ñoom fi ñu bëgg a def placer débat bi mooy dafa ne woon musul gisante ak Mansour Faye wala li déedéet dama ne Mansour Faye dafa wax lu dul dëgg te audio bi andi na ko ñaari yoon bi ci njëkk mooy bi muy wax loolu moom liñ ci jublu mooy fexe ba dugal lënt lënt ci boppu Sénégalais yi ba ñu ne Ousmane Sonko mii di jaay opposant radical fay opposé wu le matin lu ne mu yak ko gars ngone mu dem di yelwan pour Macky Sall recevoir lool moy premier bu bëggon duggal ci bopp sénégalais parce que Sénégal dañu dem ba gëmatuñu kenn ci walu politique japp nañ ni politiciens yépp ñoy yam dañuy wax ci kaw waye ñu ngi négocier ci souf lool moy premier nal bi mu bëggon nal fexé ba duggal lool ci bopp sénégalais ñaarël bi. mooy li ne man maa dem sàkku ci moom pour mu dalal ma pour ma ñëw ñaan ko service audio bi man maa ko def mi ngi fii sama téléphone maa ngi ko def le 29 septembre le 28 septembre la Mansour Faye génn wax li mu wax ne man damaa def loolu ñëw saraxu ko ñaan ko audience le 29 septembre ma jël audio bi enregistré ko ba may jógee Ndar envoyé ko Cheikh Issa Sall loolu nag ci suñuy pexe la woon te lañ ci bëggoon am nañ ko ndax bi mu defee déclaration rek laa xam ni dañoo nal seen plan boo xam ne moom day ñëw wax li mu wax après yu dem génne seen seede mu ñëw wax li muy wax te ñoom ñëpp ñoo bokk seen parti APR. ma ne war naa fexe ba mu am benn élément boo xam ne mooy dox suñu diggante suñu muusoon tuuti dinañ xam ni man mii Ousmane Sonko Mansour Faye mënul wax li muy wax le 28. man ma am légèreté sagal ba di jëf benn audio envoyé ko Cheikh isa Sall suñu musoon tuuti rek dinañ xam ni am na lu laxasu si biir boobu jamono am na lu mu ci doon parce que xamoon naa ni boo ko defee Cheikh isa Sall jël ko yóbbu ko jox ko loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla parce que booy jëflanteeg ñoo xam ne gannaaw lu ñu wax katu dëgg waaye topp nañu alalu réew mi di góox di góox ba seen xel yi màccatul xalaatatuñu ni ñu war a xalaatee su ñu defee seen pexe da ngay teg sa pexe ñu mu dem annoncé Odioba Odioba ñaar laa ci bëggoon leeral ci Sénégal yi bu ci njëkk damaa fixé date bi 2013 2013 man nekkagum woon ci politique que ñu ngi ko créé en 2014 at ca gannaaw la ñu créé PASTEF 2013 j'étais secretaire général honoraire du syndicat des impôts et domaines kon. su buggee gëmloo ni Ousmane Sonko opposant moo dem naan damaa damaa bëgg audience wala damaa bëgg lii wax na lu dul dëkk boobu j'étais secrétaire général honoraire du syndicat des impôts te dafa am solo ci chronologie bi ñaari bi am solo mooy te naa ci audio bi mooy moom Mansour Faye moo ñëw sukk sama kanam ñaan ma audience ndax Cheikh Issa sal moo nekkoon secretaire général moo ma woo man ne ma Serigne Ousmane dama la ñaan lenn sama patron daf laa soxla nee na il faut ngeen toog bi ma ko nee nag ñoo bokk promotion la ma ne ñaanal ma sàkkul ma pour que ma gisee moom ñu toog waxtaan te wax naa ko ci audio bi kon audio bi nga xam ne mooy suñu référence ñun ñëpp wane na ni ñaari bugguma utiliser baat boo xam ne parce que ay kilifa lañ ñuy déglu waaye ñaari wax yu méngoowul ak dëgg ci ci li Mansour Faye wax wax na ko ci te bi mu koy wax journaliste bi sax moom dafa tiit ba ne ko yow xanaa loolu lu yàgg la doo ma ne Ousmane Sonko bii la journaliste sax bi ngi wax après radiation du radiation 2016 la ñun 2014 dañu créé parti ay ñëw gis ma ne ma dañuy créé suñu parti te yow rek la ñu doylu pour nga ñëw jiite ko 2014 Mansour Faye 2013 la ma sàkku yónni Cheikh Issa Sall ne ko dama la ko ñaan rek damaa bëgg nga fexe ba Ousmane Sonko ñëw ñu toog ma wax ak moom. te bi mu ñëwee toog loolu mooy ñetteel boo xam ne parce que ñoom dañoo teg seen plan ne dañ koy génne par pàcc man nag lépp laay jeexal tey parce que fi mu ne nii li ñu yoroon yëpp génn nañ ko te maa ko tey parce que su ma teeloon wax ñu toppaat ci wax ji di wax fi mu ne nii ojo la ñu waxoon génn nañ audio bi ñetteel bi nga xam ne moom lañu waajaloon nag pour après ñëw ci mooy lan lañu lan moo ne woon ci slide euh, audience boobu gannaaw bi ma Cheikh Issa toppee ñaari fan.

ba ma nangu ñu gisee bi ñu toogee ma ñëw ñu toog mu commencé <laughs> waaw sëñ Sonko yow daal yow nag tàng nga yow daal yaa ngi ñu sànni xeer rek lii mu doon nagam nagam ah ñun ñu ngi doog a toog régime bi doog a toog nga ñuy sànni xeer man daal li ma bëgg mooy nga wàññi xeer yi ah ñu xool lu ñuy def man sax yow tu es président dafa soxla ñu mel ni yow mun naa jàpp sa loxo yóbbu la ci président nga am audience ma ne ko monsieur Mansour Faye man soxloo ma audience avec Macky la may def it dama ko def ci cadre mandat boo xam ne syndicat bi ma bokk moo ma ko jox wax loo ma ma wax te fileeg maa ngi gëm ni dëgg dëgg laay défendre du ma wàcc ci loolu kon duma ñëw fii nga naan ma ay ma yóbbu la ci Macky Sall ngeen wax bi wala ngeen wax laa nangam nangam noonu la audience bi jeexee ma génn bi ñu génnee laa ne Cheikh Issa su dee ñii ñoo war a jiite réew mi gisuma ëllëgu senegal te lii may wax nii. bu amna am lenn lu ci deug lu dul deug billahi wallahi wa tallah yalla mo yalla la te Sénégalais xam ngeen ma xam ngeen ni musuma len wax dul deug dama ko wat nak su dee ñoom génn nañ taxaw wat dootuma add ci affaire bi yalla mo ñi atté bi yawmal yowul qiyam dee li wax amna lu toll ni tarfa tay dul deug billahi wallahi yalla mo yalla la ni la bir bi demee ñu génn fofu ma xam nak neena len état bi ñew moy ñew ni lii lañ doon wax xam ngeen jamono jooju du mu tomber dafa tomber ñu lancer CREI bi daal di jël liste 25 personnes ne ñi ño lek alalu rew mi da di def bruit bu dul jeex fi man ma jëlon ci ay position yo xamne dama koy assumer ne CREI bi ab tappale la justice taxu leen a politique mo leen tax te ñun duñu nangu ñu jël ñett ñent sénégalais. sacrifier leen ba paré ñom ñu toogaat parce que suñ doon def créer deug Macky Sall du ci mucc ma def ci ay ay ay ay articles yu ma bind en tant que secrétaire général honoraire du syndicat loolu dafa am solo de duggaguñu won politique ñu dellu ci ma def ci ay émission bi ci gëna a siiw mooy émission bi ma def ak Pape Alé Niang 2STV daal di démonter li ñu doon wax yépp pièce par pièce ñu toog ñu convoqué ma créer boobu

Euh, euh, tel ministre moko mom xamna ñu ne ñun dañ régime bi wax ñu lan nga ci xam ci li ñu mom ba leen da ngeen ma jox liste dama leen wax xam ñu ne entretien bi jeex na may leen ana PV ñu ne signé dañ la rek comme ku war a am xam-xam ci mbiri comme yaay gérer brigade immobilière mais jaratu ci cadre boobu yéen a ngi fàttaliku boobu la la envoyé de vérification Macky Sall président de la République mu andi coow lu bëri impôt ci société civile am ma envoyé ko ko Mermoz gi mu dëkk ñu ne nekkat fa mi ngi pale ma ne agent bi yóbbu ko pale mu andi woon coow bu dul jeex ñu convoqué ma ministère ne ma mënatoo nekk chef de la brigade immobilière parce que tu as ce que tu as fait c'est une faute lourde ma ne leen Macky Sall citoyen sénégalais la bu amee société dañ ko war a vérifier ni ñuy vérifier beneen société bu dul moom kon du ma fi jóge ci brigade immobilière ci ci cadre boobu boobu man maa nekkoon secrétaire général du syndicat des impôts ñu am bant bu gudd bu ñu may laale ci jamono jooju la Mansour Faye sàkku sarafu sukk jonkan yónni Cheikh Issa Sall ne ko dimbali ma rek nga wool ma Ousmane Sonko il faut ñu toog ñu waxtaan waat naa te ñi ku ma xam-xam ne ni du ma waatal dox ndax xam naa lan mooy valeur waat lii mbokk yi mooy mbir mi ma feddali ni Moussouma rencontré autorité politique bu APR ni avant ni après ñaar ñi ma mës a rencontré mooy bii ma wax ci souffert de beaucoup de politique. politique en 2014 ba léegi ma politiques. politique Moussouma rencontré l'autorité autorité politique bu APR lu dul moom Macky Sall ci bi bi bi bi feebar bi commencé mu consulter ma dem uyu ji ko bëccëg mbir kam génn def sama déclaration ngeen dégg musuma rencontré du ci guddi du ci bëtëg du ñu ñuy làq musuma toog ab koo xam ne day politique ak affaire ñu naan dañuy waxal dañuy ruumalaan loolu ko essayé dugal ci bopp Sénégalais da ngay wax lu la neex bi ma commencé liggéey ba léegi musuma demandé une audience à une autorité politique musul am man lañuy ñuy daw sama gannaaw di ma demandé audience du ma toog ñaari fan ñetti fan une semaine te nit ñëwul taxaw ne ma Macky Sall daf laa bëgg a gis te su ma ko waxee yéen Sénégalais war ngeen koo gëm léegi nag li ne ci audio bi kii sàkku moom ne dama laa bëgg a gis su dee am na kuy saraxu moom lay doon ndax inverse bi mënul nekk lii nag nee naa tey laa ciy wax. épuisé naa ko demee mun nañu génn naan dafa ñëwoon ñaan pour tay bu njaay pour Masamba pour Mademba dara du ci dëgg lii moo ne woon suñu suñu entretien 2013 duggaguma ci politique ma yokk ci nag nii lii lépp ay li tubaab daal contre la xam nga ñoom ni ñuy fonctionner mooy bu ñu demee ba sës ci miir bi ñu xam ni jàpp nga leen rek ñu ne naa taal ab daay fële gars yi daw di fay daay bi man rocceeku moo wax lu leer fii Mansour Faye Mansour Faye Mansour ba muy ñetti yoon munoo raw fii ci senegal parce que Mansour Faye sénégalais dama bëgg ñu xam li ëpp ci problème yi ñu jonkanteel Mansour Faye mooy responsable ndox mi ñuy wax nii Mansour Faye mooy responsable ndax moo nekkoon foofa ba ñuy def la ñuy def ba jël suñu ndox jox ko waa Suez alors que SDE moo jox moo amoon meilleure offre bi mu jox ko waa Suez ñooñu wëlbati ko jox ko ay camion yuy fa yuy ramasser mbalit mu yóbbu ko Saint-Louis loolu la ñuy wax corruption tey Suez mënul gérer suñu ndox bi chaque jour xuy xamam loolu responsabilité Mansour Faye ñaareel bi problème assainissement bii ñuy wax nii 750 milliards yi moom moo ko doon gérer. bëgg après élection yi wala juste avant élection yi lañ ko jox leneen waaye yemul foofu bi ñu nee euh, euh, euh, feebar bi dugg si na corona bi ñu ne budget mille milliards ceeb beeg diwlin beeg ñoom seen ci loxoom lañ ko teg kon boo xam ne lu mu tuuti tuuti yor nga suñu mille cinq cent milliards yoo xam ne sa loxo la tegu lu bokkul ak yeneen ba pare nga ñemee manqué respect sénégalais taxaw ne suma pas ma of fa dem mané Mansour fay ci ni wala ci suis day gàtt wala day gudd yow ak ñi melni yow mënu di rendre compte dans ce pays là lool rek le débat bo xamné mo wara intéresser sénégalais responsable responsable bi Macky ndax Mansour Faye nga xam ne munoo ne lii la jàng munoo ne lii la xam lu mu dugg mu lënt nga jël ko jël ministère bi gën a rëy ci suñu ministère yi jox ko ko lu diis ci Sénégal nga jox ko ko lépp nag pour waajal dauphinat mooy lu ñuy fexee ba moom mu wutu fi ndax Macky ragal na ragal boo xam ne ci li mu def ci réew mi jàpp na ni su fi jógee kenn rek moo mën a toog mu mucc mooy Mansour Faye wooluwu ci Amadou Ba wóoluwu ci Matar Cissé wóoluwu ci Mimi Touré wóoluwu ci wóoluwu ci ñoo ñëpp il faut mu écarter moo tax tey ñu koy xàllal pour mu mun a am ay milliards yu mu demee nit ñi ñàkk seen xel lañu yor mënu leen fexe ba nax leen la ca des nag mooy ma koy wax ak sénégalais yi di ko wax ak suñu waa parti politique c'est pas un long fleuve tranquille politique ak coow bu sew ñooy ànd même li ñuy wax les plus grandes démocraties da ngay toog ñu fexe ba génneel nit ay dossier wala yu demee noonu kii doomam dafa doon def affaire ak Russie kii jabaram dañ ko employé woon ci mairie Paris kii lii kii lii loolu ak politique ñoo ànd bu leen yaakaar ni ñun li ñu bëgg a politiquer dañuy toog rek te gars yi ñu pexeel duñ sosal duñu lii duñ ñu lii dañ cee war a préparer Pastef dafa judd ci loolu moom moo li leen yu gàtt rek fàttewu leen dañoo commencé rek ñu commencé génne nañ fi biñu impôt député yi coow am na fi ñun ñoo bulletin de salaire gis ngeen fu ñu tuuti ñu euh, société nationale yi nga xam ne ñoom bokk na ci li andi sama ñu tuuti ñu créé dossier des 2 yéen koy fàttaliku réel plateau télé. ne waa ji dafa dagg ay suuf fële almadi def ko lii nangam nangam jóob si fekk dara amu ci tey gis nañu résultat bi ñu dawaat tuuti ñu génne fi ab dossier ne moom moo ne nañu daal dagg li leen neex ci ab dossier ne moom moo nañu dajale ñi fi mus a nekk yëpp président dañ leen dóor ay bal ñu de te fi coow boo xam ne bu dul jeex ba intervention président Abdoulaye Wade ñu doxaat tuuti ñu ne ah moom de société bi ñuy wax Tullow Oil moo koy financé moo koy jox xaalis benn journal boo xam ne nee ci journal yi ñu gën a journal, la ci groupe de presse bu ñu gën a daan koy def titre bu ne cent millions xam ma ko société boobu jox ba société démentir ne ko waxati ma porter plainte ñu dem bay dugg campagne xam ma sori la tudd ma daal di ne Russes jox su xamoon risque risque ñan yooyu risque dina dina dina dina xool bu baax balaa muy <laughs> génn génne lool ci gémmiñam fa mu mujjee xam nañ ko ñu toogaat ne dañ leen sosal ba ne léegi dañuy déposer ay plainte ci pétrole beeg nangam nangam def fi show bu dul jeex man de ba léegi maa ngi xaar ñu andil ma convocation wala assignation sax ne ma plainte nañ la dara ñu toogaat tuuti ñu génne fi dossier 94 milliards bi yéen a koy fàttaliku ñëpp ne Sonko day dem kaso. jappal bay dem ne def nañ sen plainte lii ak lii ak lii OFNAC bi mu génnee rapport fi mu mujjé moy ñi ko ñi ñi ma tuddoon ñëpp OFNAC def nañ leen yóbbu ci kanam yoon parce que dañu sacc xaliss rew tay gis ngeen leen ñu jël vidéo dag ko jël ci parti ci lima wax man pour gëmloo nit ñi ni soko neena bu bu bis bu nekké président euh, xew-xew diina yi am sénégalais da ko fi kon sos ki yàgg na te jeexagul nag nañ ko dugal suñu bopp yi te waajal ko te man mënuñu ma ne bul ci àdd bul ci wax parce que dafa am mbir fu muy toll yow mi mu concerné yaa ko mën a leeral tey ñu bëri dañ ma naan yow sa interlocuteur président de la république bul wax ak ñii waaw sama interlocuteur président de la république la waaye mënu ma nekk député ci askan wi jiite parti boo xam ne day xeex nger di xeex pour bonne gouvernance pour ñu yor réew mi ñu ko war a yoree ni mu rafetee ñu bàyyi détournement yi ma dem ñu ne ma ab ministre nee na suñ ko woowee ci li mu doon yor war koo sellal of nag du fa dem ma ne du ma ci tontu parce que man Macky Sall rek laay waxal loolu na ko nit ñi comprendre bu dee nag ministre boobu da ngaa tontu wax ci moom wëlbatiku di ut diversion dem ci tere wax lu dul noonu moom moo bi polémique bi waaye ñun ku ñu woo ci dañuy dem ba mu jeex parce que amuñu lu ñuy nëbb amuñu lu ñuy ragal. loolu moo ñu may fi ñu toll ni ñu mën a nekk à l'aise te politique nga ñaar moom mun a am soit nga ne muut dem tool yi ne yoon sama yoon newul ci li xew ci réew mi soit nga ne déet damay opposé wu taxaw frontalement opposé mais opposition opposition boo koy def ñi ngay dóor ay coup ñoom dañuy essayer fay tey bu ñu amoon lu toll ni tarfa taxaw ci man maa nga kaso ndax yàgg naa ne lancer défi def naa fukki at ak juróom administration fiscale l'impôt nga xam ne mooy li gën a sensible ci xaalis ak ci suuf keroog bi ñu ma dàqee lëm ko dama def sama déclaration patrimoine ne leen lii ak lii laa am benn kër laa am benn oto laa am néeg nii ku mun a génne am ngeen renseignement généraux am ngeen euh, euh, euh, administration am ngeen ñu leen di waxal la ñu leen di bindal bu ngeen mënee génne un centimètre carré boo xam ne maa ko moom wala ngeen mën a génne compte bancaire lu weesoo li wax ni moom laa am dama turoon cinq cent mille bu ngeen ñëwee autorisé naa leen ngeen yóbbu ma kaso boobu ba léegi mënu leen génneel dara ne Ousmane ko def na fii kon li am solo du li lay sosal li am solo mooy loolu bu mu mës a ne sos yi dina ñëwaat dina ñëwaat dina ñëwaat waaye il faudra à chaque fois ñu setal ko bu mu set wicc bañ a bàyyi dara lu lënd ci bopp Sénégal yi may fàttaliku nag may fàttali pour daaneel bi lii waru woon sax jël soi bu bëri si ñun waaye fàttaliku leen ni jamono juñ ci tolloon coow li bëri woon na trop trop trop ba il a fallu ñu topp ko ba mu jeex ñu doog a ci leneen lii mënuñoo divertir ci l'essentiel mais il fallait ñu def ko ndax suñ ko bàyyoon nii lenn ci suñuy militants nañu am lënt seen bopp lenn ci suñuy sympathisants nañ ko am lenn ci sénégalais yi nañ ko am mais l'essentiel mooy la mooy moom Macky Sall dafa dëkk woon ñépp ne o fañ fañ fañ fañ ku tëgg na samp naa sama ndënd pour débattre ak sénégal yi ci yorinu réew mi rawatina li ñu woowee assainissement balaa muy daaneel ma ma ñëw daan balaa muy pare ma ñëw daaneel ndënd loolu nag su dee dañoo nekk ci làmb lan moo ci des dañoo war a sëkk bari débat laay woo Macky Sall ni mu ko waxee woon moom débat public télévisé télé yépp taxaw ñu war a ni moo ni mu yoree réew mi moo gën a ñaaw moo gën a salte ci ni ñu mus réew mi bi indépendance am ba léegi bu dee moom li muy woote dëgg la ci moom ndax dafa ne dafa bokk ci deret bu noble boo xam ne ay guerrier lañu woon ñoo doon xeexal nit ñi ba tax mu tëkku nit ñi ñu woo ko ci xeex boobu du xeexu bant du xeexu jaasi xeexu xalaat la xam-xam ñu ne ko su dee wóolu nga sa bopp ñëwal ñu def débat boobu loolu mooy l'essentiel tey Macky Sall la ñëw sëgg ñu def débat ñaareel bi mooy nee na lancé na son plan de relance économique ma leen wax ni loolu du plan de relance économique plan d' ajustement la Sénégalais yi nee naa leen confiance dox na suñu diggante la ko andi mooy musuñoo wax lu dañ te juróom-benni at rek la def ci politique tey cofeel am na suñu diggante parce que xam ngeen si ñun ñoo leen toogal fii di leen xeexal te xam ngeen luñ leen mës wax rek dëgg la. kon su ma leen nee Macky Sall mënul redresser sa pays laa gëm leen ma Macky Sall bu muy door la lajj ndax musul am yéene yor réew mi ci ci ci ci anam yu set musul am yéene xeex guerre jël ay mbokkam wër bu ku nekk tey ay multimilliardaire lañu musul am yéene am gis-gis boo xam ne pour intérêt sénégalais yi la waaye yéene gi mu amoon mooy toogal fi France waaye tey yematul ci France ma nga ca Turquie ma nga ca keneen ak keneen moo tax keroog bi ma demee Casamance mu am ko ma laaj ne ma waaw li nga wax ni yëpp est-ce que kon Macky bëgg na Casamance audio baa ngi fi dama bëgg ngeen déglu ko dama leen ne mbir mi du question bëgg wala bañ loolu problème mu sentiment la man gëm naa ma Macky Sall bëgg na Casamance ci xolam waaye suñu xoolee réalisation yi mu def tey dañ ngeen ñu ne Bignona amul morgue département bu toll ni Bignona morgue bi doxul gis ngeen ay xale génn defaraat ay yoon tey diggante na ak Ziguinchor yoon bi ñu naan tooboor amatul nekkatul mais nag bu ñu seetee ci loolu rek naa ne Macky ci ay jëfam ak réalisation bëggul tooboor bëggul Ziguinchor waaye bëggul Sénégal tout parce que amul fenn fu mu def lu tax ñu wax waaye bëgg na France bëgg na Chine bëgg na ang euh, Turquie bëgg na Maroc waaye bëggul Sénégal loolu moo ne woon sama tontu ba tax ma ne li mu wax plan de relance économique mënul relancer Sénégal ñetti at yi di ñëw ma waxaat ko ni ma ko waxoon assemblée nationale sénégalais yi xaar toog xam leen ni dina métti trop xam naa ni métti na trop fi mu toll bis bu ne nga daje nit mu ne la maa ko woteeloon waaye rëccu naa ko bis bu ne nga daje nit mu jooytu munoo génn ci ne di mbedd bi dox te duñ la tàllal loxo waxuma la mbënd mi waxuma la euh, école yi waxuma la paj mi waaye munoo génn ci mbedd bi te nit du la tàllal loxo ne la soo ma jàppal tey du ñu taal du ñu taal suñu kër loolu nag yéenewu ma ko Sénégal ndax sama xol senegal rekk a ci ne waaye dama bëgg def ni ñuy wax objectif na Sénégalais yi xam ni loolu jeexagul fii rek Macky Sall ngi ñetti at ak genn wàll yi ñëw Sénégal dina métti trop trop trop trop. dernier mois priorité yi gannaaw bi ma waxee sëgg bi ñu war a sëgg pour demaat ci Sénégal wax ci plan de relance économique bu ci mujj mooy. ñun dañoo am suñuy programme yoo xam ne macha allah tabaarkalla te kenn mosu koo gis ci politique fii Sénégal Sénégal yi wuyu si mu am succès boo xam ne ba Touba barki dem kër sëñ si fu ma dem li may njëkk mooy loolu nga dugal xale yi bu ci teggi sa tànk mukk rafetu nañ ko ba fu fu yàlla xam muy vacances agricoles patriotiques mu am succès bu macha allah créer jalousie yu bëri coono yu bëri loolu suñu priorité la dañ ciy jubluwaat. gën a naatal mbiri parce que programme la bu ñu bëgg a saxal dak euh, euh, wéyal ko at bu ne lii ñu lancé woon muy don de sang yi ñetti weer yi daanaka presque mat na defoon nañ ko ñetti weer ci gannaaw ne woon naa leen ñenti weer yu ne lañ koy def kuy waa Pastef na nga waajalaat bu jotee rek ñu su ma nee briip rek yéen ñëpp jóg leen ñu dem ci poste ci ci ci banque de sang yi mais de ba mu mat sëkk te bu mu doon briip bi bi ngeen déggoon nag. bu nga xam ne suñu la nee prip nga walbati ku dem uti uti wallu beneen bi mooy weekend patriotique yi dem di reboiser gis nañ yéen a koy def ci école yi yéen a koy def ci place euh, publique yi nañu continuer wéyal loolu ak di def sport beeg yu demee noonu parce que baax na ci bu ci mujj mooy cours de vacances gratuite yi nga xam ne ñu ngi koy waaja a lancé ci 45 départements Sénégal yi enseignants patriotes yi ne ñoom dinañu ñëw xale yi ñu defal leen ay cours de vacances doo ci fay fukki dërëm. loolu mooy suñuy priorité nañu concentré waat ci yooyu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.